amma baadu fa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñoo ngi nuyu mbokk yi ñuy topp di ànd ak ñun ci sharx bi ñuy sharx al manzumatu al mustaxlasa mu nekk ay wëy ay bayit yu ñu jagleel alqaabu mustalax al di ci xamle bépp xaaj bu aju ci fànn bi ñuy tuddee ulumul xadiis wala mustalaxul xadiis si xamle gës a gën a wér mu nekk lu tënku waaye lu leer luy jàppale képp kuy tàmbale fànn bi wala bokk si sori kon lu yey la ñu daal di koy dooree njàng fànn bi ndax du xóotal lool ci masala ya di ko faran waaye famille yam rek mooy lépp lu luy xamle alqaabiya si xamle ya gën a wér ki ko dajale nag mooy al ustaadu docteur Badru bnu Muhammad al Ammash xafidahullah mu nekk ab professeur si xam-xam bi nekk al jaamia al islaamiya bil madinatu munawara suñu juróom jataay lañ jeexal tey ñu war a door suñu jataay bu juróom-ñaar euh, suñu jataay bi weesu woon nag ñi ngi yemoon fi ñuy jàngalee bépp xadis bu ñuy delloo ngir jam-jam gu ñuy jam kenn ku nekk ci càllale ga waxoon nañ leen ne ak jam-jam mën naa nekk lu taqoog ka ñuy jam waaye mën naa nekk lu gaar ñu jàngale xadis bi ñu tuddee almuallal mooy xadis bu am lu nekk sa biir càllale ga lu dut feeñ lu dut suñ ko gëstoo dëgg gëstu dëgg dëgg gëstu te gëstu boobu mooy dajale yoon ya delluwaat si téere boroom xam-xam ya ba xam xadis booba ban problème la am sew-sew bu illa ju sew lay doon waaye buñ ko gisee rek day jeexital si xadis ba ba dañ koy delloo waaye jàngale nañ xadis bi ñuy tuddee almutarib muy xadis bu dalut ngir wuute gu fa am wuute gu tar ba yoon ya tolloowuñ ba kenn mënu mënu leen a boole wala ñuy lënkal benn wuute ci kaw yeneen wuute ya xadis bu ñu mel nag jafe na nga gis ko waaye boroom xam-xam yi danañuy joxe ay misaal amaa nag ab xadis bu wér am benn baat wala benn kàddu gu nekk ci càllale ga wala ci yax ba ba pare borom xam-xam yi ne muttarib la loola moom bëri na si xadis lool loolu nag foo ko déggee bul yaakaar ne xadis ba lépp noonu la mel waaye ab xaaj bu ndaw la say doon su ko defee loola dañ koy defaraat rek xadis ba mel na mu war a mel bañ sa jugee si lañ jàngale li ñuy tuddee alxadisul maqlub mooy xadis bu ñu ëlbati xadis boo xamante ne na mu waroon a mel melu ko nañ ko miinee déggee euh, déggewuñ ko nii wala déggewuñ ko noona xadis boobee nag su amee moom it dañ koy defaraat rek la benn woon ñu daal di koy ëlbati ba mu jubu su ko defee mu daal di wér moo tax li ñuy tuddee alqalbu day ñëw si ahadis yu bëri nekk si saxiixul buxaari nekk si saxiix muslim loolu firi wut ak wéradik xadis yooya waaye day firi ne am na ak njuumte lu tuuti lu si am si ëlbati ga dañ ko ëlbati su ko defee nag dañ koy delloowaat na mu mën rek xadis ba daal di wér ndax kuy xool xadis yooyee da ngay gis boo delloo si yeneen téere ya dañ koy génnee si anam ya wér loola nag amul benn njeexital bu muy njeexital si xadis yooyee bi mu noppee si alxadisul maqlub tey ñi ngi war a tàmbalee si xadis bi ñu tuddee almusaxaf almusaxaf mooy lu ñu juum lu ñu juum njuumte la nag mën naa nekk ci baat ya muy araf ya mën naa nekk ci tomb ya waaye mën naa nekk ci maas ya njuumte lu si nekk bokkut ak sa moroom waaye bu si mën a am rek loolu ñu ngi koy tuddee al musaxaf mooy xadis bu am tasxiif tasxiif nag di njuumte loola day faral di am si xadis yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la koy waral nag mooy ñey nettali xadis ñoo say tàbbi mooy ñi ñu tuddee ruwaatul xadis njuumte la sax mën naa aju si kàllaamay arab mën naa aju si ni ñuy waxee baat ba mu waxee ko neneen nu dut noona moo tax am na si ay téere yu ñu taalif jagleel ko bunt bi téere ba sa gën a siiw mooy tasxiifaatul muhaddisiin li abi hilaal al askari mu ne njuumte lii muhaddisiin yu bi si xadiis ya moom la dajale foofa moom mi ka taalif tuddoon abu hilaal al askari moom nag mi dajale manzuma bi moo woy woy bii moo tax mu ne si xamle gi muy xamle al musaxaf mu ne wa in ata taxyiru fi lxuruufi aw naqti naw shaklin fa zut tasxiifi aw naqati aw naqati naw shaklin fa du tasxiifi mu ne wa in ataa su fekkee ne dikk na ak taxyiru albati ga soppi ga si araf su fekkee ne soppi ga ñu soppi baat ba dafa aju si arafiya ya aw naqtin wala si tomb ya aw shaklin wala si maska ga mu ne loolu yépp nee na fa zut tasxiif loolu la ñuy tuddee tasxiif mooy lu ñu lu ñu juum njuumte nag ku nekk si mën a tàbbi jalla man laa yuxti màgg na suñu borom mi nga xamante ni moom du juum waaye ku dul suñu boroom moom mën naa juum kon loolu mooy at tasxiif nga gis ne fii si bunt bi tuddal na la ñetti xaaju tasxiif bi si njëkk mooy njuumte lu aju si arafiya mën naa nekk yokk benn araf wala wàññi benn araf ki tudd abdullah boo ñëwee tuddee ko ubaydullah laa shakka ne yokkal nga ko dara ci arafam ya ndax abdu moo gën a néewi araf ubayd kon loola misaal la ci tasxiif ci araf waaye si yokk guñ ko yokk su fekkee ne dafa nekk muy xaaj bu ñaareel bi dafa nekk ci tomb ya loolo it day faral di am ku nekk xam na ne nabiyu ak bu bunayun ñoo bokk nañ koy bindee waaye tomb ya bokkut nabiyun nuun ja moo jiitu baaja soogu say topp amma bunayyun baaja moo jiitu nuun ja sooga say topp moo tax tuxal nañ ne boo delloo ci injiil suñu boroom ma ngi fay wax yaa isa yow isa anta yi yow sama yu sama yenantu nga wallattuka minal batuul maa la bindee si al batuul batuul mooy jigéen ju ñoŋu koo xamante ne mësul mooy boroomam wala muy joxe boppam te kan si kam si jublu mooy Maryam bintu Imran nekkoon yaayu Isa te ku nekk xam na ne Isa suñu boroom moo ko bind si kàttanam waaye nag mu bindee ko bind ko mu am yaay te amul te amul baay moo tax mu ne anta nabii yow isa yow sama yenent nga wallattuka minal batul maa ngi la bindee si jigéen ju ñoŋu googu di Maryam waa injil comme que ñoom lu bari ci seen téere ya dañ kaa soppi ak njuumte lu bari da see am naka suñ boroom wàccee ci Isa demee wut noona ñoom am na nuñ ko soppee nañ ko soppee mooy lu méngoog la ñu gëm mooy nee nañ yàlla lii la wax ci seeni wax taala allahu amma yaquluuna uluwan kabiran suñu boroom sell na kawe na muy wax la ñuy wax ñoom nee nañ suñu boroom moo ne yaa isa yow isa anta bunayya yow sama doom nga wallattuka min albatul xoolal fii soppi gi la waral soppi gi mooy si tomb ya kese tomb ya nag moo waral maanaa ja daa di ëlbatiku ba ñoom ñu jàppee isa doomu yàlla wal iyaadu billah mooy comme li yàlla wax si alquraanam wa qaalat alyahuudu uzayru bnu llah wa qaalat annasaara almasiixu bnu llah ñoom dañoo jàpp ne masiix moomee di isa doomu yàlla la moo tax ñu ëlbatiw waxu yàlla boobee mu wàccee si injiil naka yàlla waxee ne yaa isa anta nabiyi yow sama bi yonent nga ñu ëlbati ko si ëlbati bu bon ngir mu dëppook seen pas-pas si isa ñu ne yaa isa anta bunayya yow isa yow sama doom nga wallattuka min al batul kon loolu li ko waral lépp mooy ak ëlbati doonte ñoom mën naa nekk lu ñu tey waaye ëlbati mën naa nekk ak njuumte moo tax ñëw na si yenn téere al istilaax ne kenn si buuru jullit ñi dafa bind gouverneur am ne ko sama téere bii de bu agsee si yow muy sama lettre bi dama bëgg nga konteel ma ñi nekk si dëkk bi di nguuna ngaana mooy ñi yàlla bindee ñaari cër cër bu jigéen ak cër bu góor moom la ñuy tuddee al muxannas ida jaat ka risalati fa axsili al muxannasin axsi mooy konteel ma ki ko doon bind nag xaaja xaa bi nga xamante mooy axsi di konte daf kaa tomb ba mu ko tombee nag nam koy liire mooy an axsi mooy nga daal di may tàppal wala iyaadu billah moom nag bu ñu gis ne buur bi moo wax li képp ku nekkoon si dëkk ba amee ñaari cër rek mu daal léegi tàpp nga far nag yore wooto benn cër loolu xoolal dégâts boobu nga xamante ne nii njuum njuumte moo ko moo ko waral moo tax at tasxiif dafa nekk lu grave rawatina bu nekkee si tomb ya ax si mooy konteel ax si mooy mooy tàppal te tàpp jur lañ koy def waaye doomu aadama moom boo ko tàppee rek euh, daanaka rey nga ko ndax lu métti la lu ñuy def nit ki ba cëram booba di tàpp comme nañ koy defee jur surtout si seeni jamono nga xam ne euh, médecine muy wàllum paj àggul woon fi mu àgg tey ji si jamono ji kon loolu yépp la ko waral mooy ak njuumte loolu lañu tuddee ak tasxiif xaaj bu ñetteel bi mooy ab tasxiif bii nekk ci shakl bi muy masque ga masque ga mooy ñu maasee ko nii am jineen ñu ko maasee neneen loolu jotoon naa junj si ba may shara nuxbatul fikar ne loola dana sabab sax boroom xam-xam yi di wuute si àtte sharia yi ngir masque ga nañ ko masqué nañ ko maasee ma joxoon si misaal xadiis yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam zakaatul zakaatu ummi mu ne yonent bi saa nee na xar mi nga rey fekk si biir ba ab doom su dee doom ja dafa génn faatu indaalewut bakkan dagan naa lekk ndaxte rendi ga lewatal yaay ja moom moo lewetal doom ja zakatul janini zakatu ummi kon loola rek day doy waaye alxanafiya ñoom dañ kaa ñëw maas ko maas nasab ñu ne zakatul janini lewetal ga ngay lewetal doom ja nekk si biir yaay ja zakata ummi ummi yi comme na woon yaay ja mooy tax mu daal di dagan kon bu juddoo indaale bakkan nga bëgg kaa rey rey ko day dagan a lekk waaye su fekkee ne indaalewul bakkan nag boobaa du dagan du dagan medd lay doon loola nag ak wuute la te la ko waral mooy maska ga ñu wuute donte nag li wér mooy rafaa jiñ ko rafaa mooy la wér si mas masque baat bi ndax boo delloo si yeneen xadiis loolu lay dëgëral moo tax yeneen saa saa biñ ko waxee ne ko ay temps de dañuy rey aw xar ñu daal di fay fekk ci biir ba doom waaye bi muy judd indaalewul bakkan yeneen saa sam ne kuluha wa ma xawlaha la mu indaale lekk leen kaak moom maanaam rey ngeen ko moom kon lewal lewetal ngeen ko kon lépp lu nekk ci biir ba day mel ne moom ab suux la rek bu mu indaale kon mënees ngeen kaa lekk comme na ngeen di lekkee la nekk ci biir biir ba muy res ak ay butit ak ay mbàq ak loolu yépp day dagana lekk comme na doom ja di daganee lekk kon loolu yépp la koy waral mooy tasxiif kon tasxiif day am si baat yi di am si araf ya di am si tomb ya waaye di am si maska ya su ko defee nag bunt bi boroom xam-xam yi dañ ko yitteewoo lool ba tax nañu ne baat boo yaakaar ne nit ki mën na kaa jàng si anam bu muy juumee loola mas ko fa mu gën a rawatee nag mooy tur yi moo tax tur yi dañ ñaan ndax amul dara lu koy tegtale lu ko jiitu wala lu ko lu ko mujjee kon mas ko rek nga koy def ndax tur mooy nanga ko déggee noonu nga koy jàngee waaye du ne na ko yaakaaree noonu nga koy jàngee moo tax ñu yittewoo bunt bi taalif si li ñu tuddee almutalifu wal muxtalif wal muttafiq wal muftariq wal mutashaabih wal mushtabih buntu boobee yépp ngir gaw buntu bii la ba ak njumte du si am ba mu jógee si loolu nag mu ñëw si alxadiisul mawdu bayit bii nag al iraaqi moo ko bayit moo ko mooy xadiis bu ñu sosal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam buñ ko naral bu nekk ak xuppe gu tar si ku koy def moo xam da koy def ngir lewetal ngir yoonal say pas-pas wala boog da koy def ngir xiirtal nit ñi ci diine ji am na ñuy fent ay xadiis ngir seeni pas-pas dañ bëgg a dëgëral comme xadiis bay wax naan irifuuni xam leen ma qabla an taabuduuni avant ngeen may jaamu fa in lam taarifuuni su ngeen ma xamul fa kayfa taabuduni naka ngeen may jaamoo loola ña koy siiwal la ñu bëgg dëgëral mooy seen pas-pas bay ñu wax ne nit ki dafa war a xam yàlla te nam koy xamee si kurus lay doon si tudd yàlla la koy doon wala boog bu dem si ka ñuy tuddee a cheikhul murabbi cheikh ba nga xamante moo lay yar yeggale sa yàlla moo lay jox wérdu moo lay tàggat ba nga mën a xam borom bi moo tax da nga gis koo xamante ne xamut alif xamut laam xàmmeewu leen ñu ne kooka ku yegg si yàlla la ku yeggele la sax si yàlla loola yépp ab pas-pas bu yàqu moo ko waral loola lu bari la si tey jiit téere yu bari yi ñuy jàngale si maanaam daara yi wala yi ñuy jàngale si société yi wala yi ñuy jàngale si école yi téere yu bari dafa raxe loola te la ko waral mooy pas-pas bu yàqu moo tax boo delloo si pas-pas ya yàqu ya ñoom dañ daan fenti ay xadiis ñi ñu tudde alzanadiqa ñi ñu tudde alxawaarij ak ñeneen ak ñeneen dañ daan fent ay xadiis di ko sosal yonent bi salallahu alayhi wa sallam ngir dëgëral seeni pas-pas ak la ñu gëm loola nag boroom xam-xami xadiis dañ kaa segg ba xam ne lii du xadiis ya sa am càllale ñu ne lii de ay nar la ya sa amul càllale moom dañ koy sànni te xam ne xadiis bu amul càllale xadis boobee mënta wér moo tax ñu koy wax naan xadisun laa asla lahu aw laysa lahu aslun amul benn cëslaay amul benn cosaan waaye am na ñoo xamante ne seen ak rafet njortu ak bëgg lu baax moo leen di yóbbee ñuy fent ay xadis di fent ay xadis di si teg tiyaaba ju rëy ngir ku ko dégg loole jox ko courage ba mu jëfee jëf ju ni mel comme xadis bay wax si ngëneelu alquran saar bi lii mooy ngëneelam boo ko jàngee danga am nangam si ay xuuru iin da am nangam si ay tiyaabo ak nangam ak nangam wala boog ay xadis yoo xam dañ kaa taali si buntu julli julli yoor-yoor boo xëyee bisub samedi muy bisub gaawu nga daal di julli juróom-ñetti rakka rakka bi nga daal di jàng saar sàngam gannaaw fatiha danga nga am nangami yool si xuurul iin da nga am nangami yool si ay àjjana loole yëpp ña ka fentoon dañoo dem ba gis jamono nit ñi sori nañ alquran ak lu baax ñu ne nañ leen fental ay xadiis ngir indiwaat leen si diine yàlla ji ba gën leen kaa xiirtalal ñoo ñooñee nag donte seen yéene lu baax la xaj na waaye lañu def mooy li gën a yées ndax dañoo sosal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonent saa sam nee na man kadaba alayya mutaammidan képp ku ma naral te tey loolee falyatabawwa maqaadahu min naar te ñooña la ñu def moo gën a tar ñay def safaan wa mooy ñay sosal yonent bi te ñu xam leen seen ak pas-pas bu yàqu ndax ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy sos lu ni mel dañoo nekk lu ñu yiw ba buñ waxee ne li yonent bi moo ko wax dañuy gaaw a jël loola ndax seen ak yiw moo tax nit ku ñuy tuddee nuti diine buy jëf-jëf wala muy def di wax la muy wax ña ko wóolu si diine ji dañ koy gaaw a jël ndax dañuy yaakaar ne lépp lu muy wax noonu la war a demee lépp lu muy def noonu la wéree te fekk ne demee wut noona moo tax ñooñu dañuy tuddee charrul asnaafil aw charrul waddaain ñi gën a doy ñi gën a yées si ñuy fent xadiis ak ñiy sosal yonent bi saa salaam mooy azzuhaadu mooy ña dëddu ña ñu tuddee dañoo dëddu si àdduna ak ñu ñu mën a tuddee seen bopp ndax ñoom dañuy wax te lañuy wax dañuy gis ñu bëri di ko jëfee ndax am yaakaar gu ñu yaakaar si ñoom xadis yu mel noonu nag du xadis waaye borom xam xadis dañ kaa tuddee xadis ngir mën kaa jàngat ndax boo ko tuddee wut xadis noo koy tuddee ndax boobaa doo ko dugal si mustalax wala boog dañ kaa tuddee xadis ngir ne ka njortu wala boo ka ka sos dañ koy fekk si si njortam ne xëpp ne yow lii nga sosal yonent bi xadis la waaye bu nekk xadis la mawdu la mooy lu ñu sosal yonent bi salallahu alayhi wa sallam al iraqi nee na charru daifi li gën a yées si xadis bu suufee xadis bu wéradi nee na alxabaru mooy xabaar boo xamante ni almawdu bu ñu sosal yenent bi la alkadibu buñ ko naral almuxtalaq muxtalaqu buñ ko keriyeel almasnuu buñ ko buñ ko bindal baat yi muy alkadibu almuxtalaqu almasnuu boo xoolee la muy firi mooy lépp lu ñu sosal yenent bi sallallahu alayhi wa sallam boroom xam-xam yi si seen xamle alxadiisul mawdu li tax ñu indi baat yi mooy bëgg a junju ne dafa yées ba nga xamante ne loo ko melal si baat bu garaaw loola loola doyut lu mu bari bëri bëri loola doyut pour pour misaal ko pour leeral ko ngir ki nga xamante ne nii dafay dégg wax ju ni mel fu mu déggatee ñu ne xadis bi mawdu la moom da koy sori waaye fu mu ko déggee du xalaata sos benn xadiis di ko askanale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey bëriwaana ku ñu tuddee nitu diine bu toogee si plateau di jàngale wala di waare la muy tegtaloo si ay xadiis waxuma la dafa wéradi wéradi de waaye xadiis yoo xamante ni lu ñu sosal yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam ndax doo ko fekk mu am ak càllale doo ko fekk lu dut si téere borom xam-xam yi ñuy tuddee kutubul mawduaat borom xam-xam yi nag taalif nañ ay téere leeral ko. ba sa gën a siiw mooy almawduat libnil jawzi li abil faraj ibnil jawzi waaye am na tamit yeneen téere yu dut moom kon xadis boobee mooy xadis bi gën a yées si xadis yi ndax yeneen saasam moo ne képp ku ko naral na waajal baam si safara yàlla ñu si yàlla musal bi mu jógee si loolu nag mu ñëw si alxadisul matruk alxadisul matruk mooy xadis boo xam ne dañ kaa bàyyi dañ kaa bàyyi sànni dañoo dagg sànni ngir ak wéradéem gu tar waxoon naa leen si bi may shara nuxbatul fikar ne baat bi al xadiisul matruk wala baat bi al matruk li ëpp si boroom xam-xam yi koy jëfandikoo si nit kiy nettali xadiis bi la waaye jëmmi xadiis bi moom duñ ko misaal di ko melal ne xadiisul matruk waaye lañ koy melal mooy xadiisun daifun jiddan dafa tar lool amaa nag kay nekk ci càllale ga nettali xadis bu ni mel kooku moom mën nañ kaa tuddee matruukul xadis moom ku ñu bàyyi ay xadiis la ku ñu bàyyi ay xadis la kon wasfu la woo xamante ne day jëm si kay nettali xadis bu muy arraawi waaye du wasfu woo xam ne dañ koy jëfandikoo si xadis bi kon doo fekk borom xam-xam yi ñu ne haada xadiisu matruuk loolu bëriwut doo ko fekk daanaka doo ko gis waaye am maa ñu ne haada raawin matruuk kii kuy nettali xadis la ku ñu bàyyi ab xadisam loolu lu bari la moo tax boo delloo si maratibul jarxi wa sa degré ya gën a suufee bokk na si matruuk ñu koy jëfandikoo si ñenn ñay nettali ay xadis moom moo xam ne ñaari bayit yi kan la ñuy tuddee xadis xadisam matruuk wala kan la ñuy wax raawin matruuk mooy kii muy bëgg a misaal si ñi mu ñi mu tudd mu ne wa sammi tuddeel bil matruuki si ku ñuy bàyyi xadiisam fardan kenn kenn ku wéetu si xadiis tusi bi boo ko defee de da nga xam ne yow dal nga si lu jub maanaam la nga wax lu jub la dëngut ndax dafa méngóog waxi boroom xam-xami xadiis kenn kookee nag lan mooy misaalam lan mooy màndargam mu ne raawin benn mu nekk kuy nettali xadiis lahu muttahamun bil kadibi dañ kaa tuumaal muy fenal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp kuy fenal yonent bi sax alayhi wa sallam ñu tuumaal ko ko amma ku koy fenal nga xam ne moom dafa am yaqin ne moom dafay fenal da koy fenal kooku kazaab lañ koy tuddee kuñ ko tuumaal nag muttaham bil kadib kooku matruk lañ koy wax mu ne aw arafuuhu wala ñu xam ko ak fenam ñu xam ne moom day nar minhu fi gayri al asar si lu dut xadiisu yonent bi waaye xam nañu moom day nar si wax si waxi boppam buy nettali nit ñi bu diggee nit ñi day nar si loola dinaa la jox te du la jox diw moo wax te diw waxut diw moo def te diw defut kooka buñ ko gisee ci ay waxam kooka bu nettalee xadiis matruk lay doon moom moomee wala mu ne aw fisqun wala bokk ak kàccoor aw xaflatun wala sàggante aw waxmun wala njuumte kasur bu bari lool kon kii juum juum bu bari wala mu sàggan sàggan gu bari wala mu nekk ku kàccoor ba mu fës lool kookee tamit matruk lañ koy tuddee kon matruk daal jàppal ne képp ku am màndarga yii mu tudd kooku matruk lay doon mooy ku ñu tuumaal sosal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala ku ñu tuumaal wala boog ku ñu xam ne moom day nar si ay waxi boppam wala koo xamante ne ak kàccooram dafa fës wala ak njuumteem dafa fës wala boog ak sàgganam dafa fës kookee yépp ñu ngi koy tuddee matrukul xadiis matruk nag lu ñuy sànni la xadiisam kenn du ko dëgëral waaye kenn du ko tegtaloo bi mu jógee si loolu nag ba léegi mi ngi si as-Suyuti mu war a xamle ñaari xadiis façon wa xadiis yi ñuy tuddee ash-shuduudu wal munkar ash-shaadhu wal munkar si xamle gi muy xamle shaadh nee na wa du shuduudi maa rawa almaqbuulu muxaalifan arjaxa walmajcuulu mu ne du shuduud buñ koy wax muy xadis boo xamante ni nii shaad nañ koy tuddee mooy maa lépp loo xamante ne rawaa nettali ni ko almaqbuulu ku ñuy nangu ab xadisam waaye nag muxaalifan muy wuuteeg arjaxa ku ko gën a lënkale sëriñ baa ngi nii nii la ko nettalee kenn si ay taalibeem nettali ko anam am keneen ku wuuteeg moom ka wuuteeg moom nag moo ko gën a dëgërle ab xadis ci sëriñ boobee moom mi gën a dëgërle xadisam maxfuuz lañ koy tuddee waaye moom mi gën a suufele xadisam shaaz lañ koy tuddee waaye nag ñoom ñaan ñépp boo xoolee si wàllu jël ab xadis ak delloo ku ñuy nangul leen seeni xadis lay doon moo tax mu ne maa rawaahu mooy lépp loo xam ne nettali nañ ko almaqbulu ku ñuy nangul xadisam waaye nag mu xaalifan muy wuuteeg arjaxa ku ko gën a lënkale foofa la taarif bi yem nee na wal majulu li ñuy jël nag ak li ñuy maanaam wéyal si bunt bi mooy arjaxa mahfuuz kon baat bi dafa maanaam am jokkaloog bayit ba sa topp lam fa bëgg a jàngale mooy li ñu tuddee ar raajix moom maxfuuf lañ koy tuddee waaye li ñu tuddee ashaaz moom mooy marjuux ba kon shaaz liy jàkkaarloog moom maxfuuf lay tudd ndax ñaari anam la yu wuute ñu lënkal benn anam bi ba ñu lënkal moom la ñu tuddee maxfuuf ba ñu delloo moom la ñu tuddee ashaaz mu xamle ba sa topp muy almunkar mu ne almunkaru alladi rawaa gayru thiqa muxaalifan fi nuxbatin qad xaqaqa almunkar bu ñu koy wax de si borom xam-xam xadis mooy alladi mooy xadis bi nga xamante ne rawaa nettali na ko gayru thiqa koo xamante ne du thiqa mooy koo xamante ni daif la ku ñuy delloo ab xadisam waaye nag muxaalifan muy wuuteeg fii nuxbatin qad xaqaqa mu ne wax jii de boo delloo si nuxbatul fikar ibnu xajar dëggal na ko muy wax jamu wax di teqale ñaari baat yi muy shaaz ak munkar asuyuti fii dafa dëppoog ibnu xajar si waxam jamu indi si nuxbatul fikar moom mi dajale tamit almanzuma bi loolu la wéyal si manzuma bi waaye ñun leeral nañ sa ba ñuy chara nuxbatul fikar ne teqale gi ñenn ñi ñenn si boroom xam-xam yi di teqale entre shaaz ak munkar loola moom waroon ak jëfinu boroom xam-xam yu jiitu ya boroom xam-xam yu jiitu ya ak wuute bu amee si ñaar wala kenn ak mbooloo wala si mbooloo mbooloo ba ñu lënkal benn wax si wax yooyee la lënkal loolu moom dañ koy tuddee maaruuf waaye lañu delloo dañ koy tuddee munkar amma baatu shaaz moom lañ ko daan jëfandikoo si xadis ya bariwut moo tax bëgg a jël ne munkar mooy ki wére di xadis su wuuteeg ka ko gën a dëgërle loolu la tuddee munkar amma ki ay xadis su wuuteeg ka ko gën a dëgërle loolu shaaz lañ koy tuddee loolu moom waxi ñi mujjee si fànn bii la comme ibnu xajar ak ñi ànd ak moom si loola te suyuuti dafa ànd ak moom si loola moo tax mu ne almunkaru alladi rawaa gayru thiqa mooy xadis bi nga xamante ni ki wére di dafa nettali ba pare nag mu xaalifan wuuteeg keneen ku ko gën a dëgërle loolu la ñuy tuddee munkar nga gis ne moom daf kaa tënk si loola moo tax mu ne loola nag fii nuxbatin qad xaqaqa boo demee si nuxbatul fikar ibnu xajar dëggal na loola ngir teqale entre shaaz ak munkar waaye ñun li ñu leeral mooy boroom xam-xam yi daanuñu woon teqale shaaz ak munkar wuute daal bu amee moo xam ka wuuteeg moroomam daif la wala siqa la loola amut jeexital si baat bi mën nañoo wax ne moom munkarul xadis wala yar wi manakir day nettali ay xadis yoo xam ne dañ ko kaa bañal ndax baat bi boo xoolee munkar mooy lu ñu bañ rek la ay xayru maaruf kenn xamu ko kon xadis bi munkar la lu ñu nangu lu ñu ko nanguwut la luñ ko nanguwul luñ ko nangul la kon ko bañal mooy lu ñu xamut si ay xadisam wala li ñu xamut si bunt bi kon daal moom munkar la lu ñuy delloo la am maa ne moom ka sa wéetu wala boo ko wuuteeg keneen ka mu wuuteel moom degereem mooy ay xadisam dañ koy delloo wala duñ ko delloo loola détails yooyu ñoom daanuñ ko woon détaillé moo tax al iraqi bi mu ñëwee si taariful munkar dafa xaala dafa delloo xamle gi mu xamle kër daf ko delloo la mu xamle woon si chase te xam ne buntu booba ñoom ñaar amul lu leen di teqale te loolu mooy li gën a wér si waxu borom xam yi xadiis amaa teqale gi nag ñi mujjee si jamono ñoom xóotal nañ ci waaye nag loolu waroo naag jëfinu ñu jiitu woon si fànn bi loola jotoon nañ kaa leeral te loola bokk na si masala yii ñenn ñi di sukkandiku ne manhaju al mutaaxirin muy jaaruwaay ak méthode bi ñu mujjee si fànn bi di wéyal dafa waroo ñi leen jiitu woon loola nag ñun duñ ci d'accord waaye nag am na ay masala yoo xamante ni ni waroo na loola nag masala yooyu dafa jara leeral bokk na si mooy masala bii di shaaz ak munkar liñ siy tënk daal mooy ñaari bunt yooyu ñoo yem la muy wuntu daal mooy bépp wuute bu am si xadiis te ka wuute moo gën a dëgërle ka mu wuuteel loola la dëgër lañuy ñu tuddee maaruuf wala mahfuuz la dëgërut la ñu tuddee shaaz wala munkar moo tax imaam Ahmad wax na si ku ñuy tuddee Muhammad ibnu Ibrahim at-Taymi te moom moo nettali xadiis innamal a'maal binniyaat mu bokk si ñiy nettali xadiis yu wér ya bañ ko ko laajee def ne mun munkarul xadiis moom day nettali xadiis yoo xam dañ ko koy bañal kon loolu firiwut ne moom saa yu nettali ab dañ ko kay bañal wala boog moom ab degereem dafa suufe lool waaye daal nettali na ay xadiis yuñ ko bañal baat ba loolu rek lay firi foofu rek la yem kon si gàttal loolu mooy suñu jotaayu juróom-ñaar si jàngale bu ñuy jàngale manzuma bii di almustaxlasa incha allah suñu juróom-ñeelu jotaay suñu juróom-ñetteelu jotaay am nañ yaakaar ne dana sa jeex bu sa jeexul nag du weesu juróom-ñeenteelu jotaay incha ñu leen jox dikk ba booba hada wallahu aalam wa axkam wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira